asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa man alhaaji Moussa Dieng coordinateur APR commune de Ñomre maa ngi leen di nuyu lu bari lool di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram maa ngi nuyu bokk commune bi yëpp damaa ne ca réew ma am ma dégg ku ni man maay coordinateur APR bu Ñomre loolu jaaxal ma lool naqari ma lool moo tax ma obligé ñibbisi man nag coordinateur APR bu ñomre bu fekkente ni Macky Sall ba mu commencé ba nëga ni daaneelul coordinateur yi ba fii nu toll maa fa taxawal koordinateur APR bu ñomre parce que kere ba Macky salli di ñëw ñomre le 11 janvier 2011 à 4 heures la ñëw fii ci ñomre bi mu fi ñëwee li nga ma fekk fii kara kër aay ba loola jaar jóge fa dem kër sëñ Cerno jóge fa ñëw fekk nu ca commune ba commune ba keroo alsantey moo fa toog ak man mi ak Biram Mbaj ak Jibi ak euh, euh, Asagay nun rek la fa fekk keroo maa maa maa maa teeru Makki mu ànd ak Mbéri Sylla ñu fekk ma fa ñu ni ma ñun de dañ fee ñëwoon di campagne Macky day campagne ndax daa bëgg a damaan kàddu réew mi ma ne ko fii de ñoom re la am nan courant am nanum tëli am nanum ndox waaye ndox mi dafa wex xorom kenn du ko naan moo di nag man maa leen recensé mat nañu mat nañ juróom-ñaari téeméeri moodu moodu bu nekk bés bu yàlla sàkk bés bu nekk juróom fukki camion dana fi dugg camion bu ne juróomi junni mu ne bu ngeen ma jàppalee day danaa leen andil ndox ma ne ko incha allah booba maa ngi wan ci pees waaye ma ni leen man tey jàppale naa Macky Sall bis booba la onze boobii di samwee deux mille on deux mille vingt deux mille onze ba léegi maa fi présenté Macky Sall maa fi coordinateur bi itam dëkk boo taxaw ci commune yi ñoom rek koo xam ne nekk nga fay politique boo fa taxawoon tey ne ko kuy coordinateur ñoom rek ñun la Moussa Dieng la loola nag moo fi nekk ba nëgëni ma jóg nag ànd ci ak bennoo bi bennoo bokk yaakaar nun nag man nag bennoo bokk yaakaar laa nekk ci biir ànd koo ak waa waa pees yi ànd koog waa muumaa bi ànd koog waa réew mi te nun nu jël sunu kàddu jiital Mame Mbargane Thiam moom lañ jiital Macky Sall yaakaar naa ne lépp lum finance financé fii ci dëkk bi ci sama loxo la tegu financement bu mu fi joxe sama loxo la tegu première campagne oto bi ma jox ab 4 x la ku ñu wax kone moo ko doon dawal fii ci sama kër la nekk am fi weer ba élection bi jeex mu ñibbi ndox mii fi ñëw nu nu at maa ànd ak ñoom nu di ko dox di ko dox ba mu ñëw yaakaar naa ni téeway bi ñëw sama loxo lañ ko teg maa ko wàccee ca jumaa ja booba kenn nekku fi booba man maay coordinateur bi bii màkka bi fi joxe man mii la ko jox kere ba ma ko joxee day booba maa ngi ci réew ma Alassane Seye moo ma moo ma woo ni ma jox nañ la bii màkka ndax coordinateur yi jox nañu ñëpp jox nañ la yow coordinateur bi bii kuy coordonnateur ci commune bi jox nañ la bee si bee baa ngi nii bee ba keroog ba ma ko waxee dama ni ko bee bi demuma ci màkk munu ma ko cee jox kenn ndax APR la ñëpp ko bokk te ñëpp ñëpp ñëpp ko bokk kon nag munu ma ko jox ki bàyyi ki bee ba dama ko dama ko jaay ba ma ko jaayee fukki xar ak ñett laa ko jënd Tabaski bi liste baa ngi nii ku bëgg ma rappelé leen ñi ma ñi ma ñi ma jox xar yi benn fifteen lekkuma ko ci lépp lu fi wàcc ci APR nag sama loxo bii la tege bu ma nekkee ci bitim réew dégg ko naan maay maay coordonnateur man damay jaaxal a ah, ma ma neex ndax damay laaj ndax Macky sàll dafa daaneel coordonnateur yi ci ci ci senegal bu fekkente ne daaneelu coordonnateur yëpp ci senegal coordonnateur bi maa ko yore ba fii nu toll te tey ji laa ko gën a dëggal maa ngi ci biir APR maa ngi ci biir bennoo bennoo bokk yaakaar duma ci génn tey duma ci génn ëllëg sama loxaa ngi ci biir duma ci génn tey duma ci génn ëllëg bennoo bi nag nun ñi ñëpp takk na li ni takk jox teg ko ci loxab maam Mbargane Thiam parce que boo gisee nu def ko nun ñi ñëpp kenn ku ne mën naa dem képp ko bokk ci ci bennoo bi képp ku bokk ci ci bennoo bi daanaka mën nga ko yor waaye nag dafa am ko leen ko gën a mën a yor waaw ku leen ko gën a mën a yor yaakaar naa ni nit ñi xamee nañu Pastef day bëy xamee nañ ko bu baax waaw ndax nit bu dikkee ni mën naa mën naa dara te ba nga juddoo ba tey gisoo ñu def dara yëngaloo fi dara amoo dara amoo kenn nit amoo benn dëkk nga dem fa ni kii moom moo ma fi présenté nga naan maay coordinateur bi maay jiite maay maay kii ah man de loolu yaakaar naa ni gàtt xel mënu ko passé ah maa ngi leen di leeral ni eh, benn bokk yaakaar bii ma nekk yow yow Macky Sall Moustapha Diop Mbéri Sylla Aminata Mbengue Ndiaye maa leen di yëgal man Moussa Dieng mii maay coordinateur APR bu ñoom rek ànd koog muum bennoo bu suqali suñu gox ak ak muumaa bi maa ngi ànd ak ñoom jàppale lu mbargaan caam bu fekkente ne juum ngeen nag ba teg fi keneen kudul ñu waa bennoo bii dangeen ko gis bu ngeen juumee ba jox ko keneen te te man ma nekk fi nekk coordinateur bi ànd ak ànd ak bennoo bi bennoo bi nun ñëpp nu takk wenn say dëkk yépp ànd ak nun bu ngeen juumee ba jox ko fi keneen képp ku ngeen ko jox daanu ko contre daaneel ko du fi am dara ñi fi nekk ñëpp ku fi mën am dara amul ñëpp xam nañ leen bennoo bee fi nekk te bennoo bi noo ngi ànd takk wenn say di leen déglu yéen nag seen ka seen yéen la ñuy déglu bu leen neexee nag juum leen ba jox ko keneen ku ngeen ko fi joxit dara la fi dul am waaw ndax mbooloo mi ci mboolam mi benn bennoo bi lañ la ñu topp juróom ñeent fukki communes yeeg juróom-ñaari bennoo bi lañ topp dëkk boo dem bennoo baa fa nekk leneen nekku fa beneen parti nekku fa leneen nekku fa bennoo fi nekk te bennoo bi mu ngi ci diggante ci ci nun ñii tey moo yàlla teg na ko ci loxo waaw teg na ko ci loxo te nun waa bennoo bi benn candidat leen am kontarun kenn mbargaan caam leen àndal àndunoo keneen nag keneen ku ni moment dem na feeg bee dem na feeg benn demul fenn nun bennoo bi lan nekk mbargaam caam lañu àndal bu ngeen juumee ba fal ko fi keneen nag daanu kontar kooka daaneel ko ba daaneel ko ko fi teg yéen waa yéen waa Sénégal yéen waa région Louga yéen waa département Louga yéen waa commune Ñomre tey bés na tey maa ngi leen di leeral boo gisee ma ñëw fii tey di ko wax dég-dég bi ma déggoon a tax maa fi représenté coordinateur APR fii ci Ñomre bokk kook waa bennoo bi te duma ci jóg tey ma ci jóg ëllëg bi ñuy watee bi ñuy watee bi ñuy watee mairie ana kana nekkoon candidat man Moussa Dieng maa nekkoon candidat bi doon wate doon ko wate maag man maa doon candidat bi Pape mu Moubarak Lo Talla Lo euh, kii kii Kanté moo nun noo doon candidat bi kon kay man bu dikkee naan ba ba affaire ba mu commencé ba tey man maay maay coordinateur bi loolu xanaa moom ba mu koy wax sax dafa waroon naa seet xelam moom man maa doon coordinateur bi mu jaan jang doon trésorier bi muy secrétaire bi di bind moom bind la doon def mosu ko caa passé amul lenn lu mu présenté woon ci APR amul tey nag mu nekk ba ma dem ñuy def déclaration ne man maay maay coordonnateur APR fii ci ñoom rek loolu bu ko waxee wax ja xanaa foofee mu toog ca bank ba di ko wax fa la yem waaye bu génnoon ci dëkk bi wala mu génn ci dëkk yi du ko fa ñemee wax wala mu laaj ni ko kañ wala mu ne mooy maay coordonnateur bi bu ko defee danañ ko weddi ci wet gi ne ko du mosoo nekk dara dëkk bi mosu cee nekk dara lu may secrétaire dong bu ñuy bind mu bind man maay coordinateur bi tey laa ko gën a dëggal nag tey la tey laa ci gën a jàpp xeex buñ ci jàpp xeex tey laa ko gën a mën a xeex maay coordinateur bi man El Hadj Moussa Dieng mii waaw maa ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram jër a ngeen jëf.